mu rëy bu ko neexee mu tuuti bu ko neexee mu physique amul benn problème bu ko neexee ñu bëre lu ëpp sax 20 minutes combat bu saf bu metti boo xam dañuy xeex bëre ñu xam kan mooy Baye incha allah. Balla wuy loolu. moom une minute la joxe ah. dama ne la. Hmm. une minute bi dama ne ko bu ñëwul mu fekk fu mu nekk loolu laa ko wax. waaw wax moom mu fii fàtt xaju hmm. mais dama ne la bu ko bëggee ñu bëre combat bu metti vingt wala vingt cinq minutes yoo xam ne ci combat bi day saf sàpp ñu bëre xeex ñu xool kan mooy bàyyi comme nee moom mi ngi ci dara. daal une minute nga jox maa allah amul benn problème incha allah yow xaar parce que temps yi xaar nga jël. Balla Gaye gerte gu màgget moom mooy loolu. dama seetlu lu màtt day booy ña nga wax gerte gu màgget. lu màtt du woqe day xuuxale loolu la wax loolu moo ko dal. ndeysaan mu ko yërëm parce yi ñoo ko dàq dans cinq minutes mu jeexal combat. mais yow ñi la daan yëpp mën na parce que magee nañ la 10 ans. waaw ñi ma daan magee ma 10 ans. yow kii ñoom ñaar ñëpp ñoo Bombardier maa ngi koy nuyu. sama papa père laa koy woowee sax mu daw. ma ni Bombardier ci mag mosul am mel. Bombardier sama papa ma de waaw. histoire Sénégal laa mag ñu lay dàq ba jeex laa mu ci avertissement. Mm-hmm. musuma ko gis. mais moom jëliñu ko fi daan daan ko kenn Umar Sène juutal na ko dóor ko onze ko dàq juñ da ngay déglu da ngay déglu da ngay déglu buñ ma juutalee dool la dool dool la quinze dool la jeeg jeeg waaw déglu buy daw ci moom laa xam si waaw dool la quinze coups beneen seen mën ko beneen bi ki la daal muy Bombardier magee na la ko waaw ba xam mën naa ko amoo mental ëmb sama mag la mais mais gëmoo ma sax jox na ma lépp gëmoo sa mag yow jox na ma lépp gëmoo sa mag bu wax sa mag mag la kay gëmoo ko tax sama mag am nañ la da nga koo gëmm rek li nga wax nga gëmul. non moom xam na ma xam gëm naa a gëmmoo ko. <laughs> xam na ko bu nekkee boobu. dama ne moom xam na naa wala gëmuma dama ne yow ki la daan maa ngi ne 10 ans muy Bombardier deux fois. li ma def ci làmb doo ko def ci làmb. waa incha allah bu ma defee temps bi nga def ci làmb naa def lu ko raw ci làmb. yow doo def nga sans tegre say défaite. non non yaa ngi 5 défaite. 5 défaite nga am. 5 défaite yow. ñaata nga am man laa am 4.

yow père bu xaal ni jour boobu war nga ko sant war ko gërëm. waaw mais maa yow nañ xam dama tekki lépp teel a ngay def nii. ci mais dama ne la dama yow laa nañ xam naa physique wala aw ma physique un minute nga joxe une minute. sa papa dafa koy joxe yow. man maa ngi sama père de sax. dama ne maa ngi koy nuyu bu baax di ko jox cëram. dama ne la yow na cinq minutes. Hmm. la moom mu ne père dafa xër une minute lay joxe. waaw man maa ko wax. waaw bon waaw kon maa xaar. incha allah xam naa loolu maa ngi ah, maa ne la. xaar loolu lu ñu tudd dama ne la dama nga ne yaa ngi laa. yaa ngi nga di physique nga. nañ def vingt minutes saf saf ñu xool ma xam nga bàyyi mënoo mënoo ah. yow giri yaa ngi di buldees mënoo mënoo giri mi ngi la doon nga buldees yi ah, giri mën na ko waaye a man giri waaw giri champion di nga xam ba xam mën naa ko la yow bëri ay ndaanaan ñam ku xam luy ku mel dama ne buñ ci yeggee di nga ma ko noo def sa rakk lu def non ko bàyyi loolu loolu fàtte def nag yow benn wax ngay wax kooku yow bëri moom daan nga ko yàlla dogal na daan nga ko loo ciy ah, a bëri si moom rek nga mos a bëri si àdduna moom lu mu ko sa daan boobu gëmoo ko yaa ko jëloo sa daan bi gëmoo sa daan gëmoo ko yaa ko jëloo te gis nga champion la yaa ko jëloo yaa ko jëloo mais gis nga non daan nga mbër bu ne yaa ko jëloo da nga ah, fa tuuti rek daan nga mbër bu ne dama la may laa dama ne combat bi da nga fàtte yaa jëloo combat bi non dama man du ma la déglu dama ne combat ko jëloo da nga fàtte yaa ko jëloo da nga fàtte yaa ngi fàtte yaa toog ci plateau bi jëloo ko ko bul fàtte nga jëloo ko ko da ko jëlal def li ngay def dem fi ngay dem ma def ko lu metti yow ñu ne laa boole yow lu gën a pire laa lay def dama lay duma dama lay daan te man na de un bari na micro bi baal la micro bi. une minute bari na une minute bari boole. pire non noo mënee noo mënee. baal yëkkatil micro bi. yow maa la noo mënee. yow maa la mën mënoo ma yow. maa la mën li nga xam ne mënoo ma maa la mën loo ma woo ma man dama ne yow mënoo. fu ma yow fu ma yow ndeysaan. mooy combat mooy combat yow maa yow mën ngay bëree yow maa fan bu mujj maa bañ loolu moo la <laughs> mosul gis wu caal fan du mujj ko bañ. Balla Gaye 2 Boy Niang. li ma def mbokk yi vous êtes sur la 2STV. yow yow yow yow père daf maa fa. c'est la 2STV mbokk yi waxtaan bi. suñu papa dëggoon daf maa bëgg a faaw dama baare. Eh, dafa la waxee rek xam nga non def naa li ma baare. yow baare ma la ci làmb mënu ma la faa baare yow mënu ma la faa ci làmb yow baare ma la ci làmb. barke yàlla ma faa parce que ma doon faa du ma jéggi ma bëgg. voilà déglu rek yow fan ci Balla Gaye numéro 2 pur mooy. déglu ma su ma doon faa du ma jéggi. dama lay xool ngay def say gestes gëstu. dama ne non non fan su Balla Gaye nga. da ngay dund rek mais yow du ngi ne après. yow dafa am ay gestes yu muy def yu dul képp kuy jeune laa la nekk ci làmb ah. da ngay bëgg Balla Gaye kii mooy sa kii mooy pay man Bada Mara yow Bada Mara li kii ah. non xam na mooy pay man dama doon wut fan dama génn Pikine non non mi la jël tax la lu metti seen champion la champion d'Afrique la ndaanaan la nekk na roi des arènes daan na fu nekk mais yow dafa góor loolu yow mën nga fan façon yow mën nga fan non xam nga. bàyyil feer non baax na ma mais da ngay bàyyi ma wax ko wax ko mais bu may bëgg ba mënoo ko wax. man ngay wër baaduma say coach nee na sa sa live yëpp Balla Gaye da nga ci suivre. suivre ko wax loolu. sa coach yëpp. <laughs> du ne sa rêve yëpp bëri Balla Gaye ko. sa rêve yëpp sama kër la bëri mu nekkoon sérieux daal la incha allah non mënoo ko ba ñu yegg ci ko ba ñu yegg ci ñu ngi ñaan suñu bopp may ñu taje fekk yàlla may incha allah fekk ko di nga xam xam mën naa wóolu mën Balla Gaye doxal da ngay bëreeg Boy Niang waxtaan wi neex na trop macha allah bëggoo leen ma dagg ko mais faag ñu dagg ko da ngay bëreeg Boy Niang mu mel ni dafa am yow danga ko bàyyi moom seen premier jàkkaarloo moom mu diriger jàkkaarloo bi te mosoo def loolu yow ee eh, laajaguma la yow xaaral defal nànk lu tax loolu non du loolu boobu saa dañ ko chargé rek te xam nga chargé boo xamante ne batterie bu ëppee rek wóorul day ah. donc après ma bàyyi garaaw parce que xam nga gars dañuy jaawale man pour mu clair mu du mbay Yékini wala Tyson li ñu ma magee dafa bëri kii ma ko magu tofal laa ko magee pour mu leer ci boppam moom mu xam ko baax mag bi demewul noonu de hmm. <laughs> yow da ngay bëri jeeg Balla Gaye seen jàkkaarloo dañ ne la boo ko deful noonu doo doo doo ko daan wala lan la yow yaa décidé loolu wala qu'est-ce qui s'est passé. non loolu am signature contrat la. ok man ak moom ñoo ko seet. Hmm. te man ak moom ñoo fa nekkoon kenn raxuñu. ok lañ fa waxante ak lañ fa defante yëpp maa moom la. c'est pas préparé. non déglu rek moom day nekk di wax signature keroog da nga ne dafa noppi. waaw mu ñëw di wax ne Sénégalais dafa noppi. mais loolu du dëgg. du ci moom parce que ñëw na fekk ma toog mu saagam saaga ma ay saago yu ñaaw mi ngi nii du ma ko weddi man a yow ñoo waxtaan xam nga li ma la nga ñëw saaga ma saago yu ñaaw donc daa déglu rek déglu rek Modou dafa déglu déglu Modou dafa déglu mm-hmm. donc kon loolu muy ñoo di noonu Sénégalais di war na ma noppi bàyyi booy mu wax du dëgg yéen a day dox day jóge fu mu nekk parfois ñëw si man jaar fu ñaaw donc nag fulla boo ko amee woon yaa ko may sa bopp dama nekk mag bu nekkul mag bu am fulla moo tax muy taxaroog man di ma saaga di ma wax yenn affaire yi comme li ngay wax rek moom ñi mu fi daan ñëpp bàyyi nañ ñu fi des di bëri benn laaw ma ñaar ñu fi bëri ñu fi lim ñoom da leen daan ñooñu bàyyi nañu bëri loolu maa ne fi ba mu leen daan ay mag lañu. Mhm. moom nag moom que ba may bëreeg moom. Balla Gaye su ma su ma dama baax nga ne yow ñëw nga quoi yow ma bëreeg Balla boo xam ne day wax ni moom mi ngi fi quoi loolu dafa baax man loolu laa bëgg. Mhm. parce ba nga jógee sa bomb su ma bëree woon ak rek mooy loolu dama lay jekkali mais instant nee nga ñëw nga kon yow loolu nga bëgg. waaw loolu la bëgg te moom loolu la wax. bala nee na ñëw na moom loolu laa bëgg incha allah. ñëwal Aïcha. Euh, Modou Mbaye. Hmm. je la respecte beaucoup. Hmm. te dama ko respecté. Hmm. barki Serigne Saliou Mbacké li may wax bu fekkee du dëgg yàlla naa torox. làmb jaroon ma loolu. dañ ne bëreet mu jóg. saaga ma ndey moom. non non waxoo loolu. non du dëgg. yaa ma déglu li nga xamul mais li nga amul. mais ma déglu ma mais li nga amul. da nga wax loolu naqari. mais parce que non non bu fekkoon li nga amul mais bàyyi nga déglu mais nga amul. non non bàyyi mu wax après nga wax bu waxee nga wax. Modou déglu Modou déglu Modou déglu déglu Modou. Modou du ma ko waaw waaw mais waaw mais du ma la bàyyi nga wax nga may ma du ma la bàyyi. nga waxee loolu dama laa déglu. mais du ma la bàyyi nga wax nga may waxal loo xam ne amul. non waxal nga ma loo xam ne mais li ma la wax amoo am. parce que xam nga loolu. non respecté ma rek. non dama ne li ma la wax dama ne dama ne la billaahi wallaahi tallaahi yaa ma saaga ndey. ku njëkk a saaga moroom yàlla na ko yàlla may ndam. incha allah. damaa soobee yàlla. moo toog na ma toog moog saakes yow yaa ñu ko jug ñëw ci man saa ko wax moom xam na ko waaw léegi yow lu tax xam na ko xam naa ko mais mag bu amee fula moo ko may boppam léegi yow la xam ne mag amee fula moo ko may boppam laa la wax dama ne mun nga sekk keneen saa ko dul man waroo woon sax mënoo nga man laa waxal leneen waxal leneen man yow maguma la waaw non kon loo am rek jëlal kon loo ci am dama ne comme loo ci am jël du ma la déglu du ma la déglu moo ma mbokk yi dañuy ànd ak yéen ñu dem seetaani lenn ci li nga xamante ni nii moom mooy waxul am moo tax déglu ma la dama ne waxul am boo waxul am ma déglu la moo tax mbokk yi du ma la déglu booy ñang numéro 2 bala waa dégg dégg waa garaaw li ñaar déglu la mbokk yi mbokk yi Balla Gaye numéro 2 ak Boy Niang combat la boo xamante ne nii mi ngi war a am le premier janvier incha allah ci arène nationale mi ngi war am le premier janvier Gaston Meng woote ko Gaston production woote combat bu am solo bi mu ne combat boo xamante ni combat bu am solo la. yéen ñaar ñëpp yéen ñaar xama. xama xama yéen ñaar xama. ayca ñu dem Boy Niang Balla Gaye numéro 2 Karajo dañuy ànd ak yow. ñu dem tàcc leen loolu waaye am na solo Balla. non dama ne dama ne man booy laa soxla ma ndox. non non man mënuma laal man du ma énervé man sportif laa du ma énervé. non non du ma énervé boo koy léegi ñu may ko gars tëgg ñu fecc man du ma énervé gars yi. non non tëggee ñu fecc tëggal. loved it. Seck. lii mooy làmb lii mooy sport mbokk yi macha allah am na am na solo lii mooy li mooy wane nii Seck Seck Seck Seck Gaston est là Vincent Lucy Monet Happy tàccu leen waay happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday why happy birthday to you joyeux anniversaire Gospudelu Simonel happy birthday Père Gaston ma njëkk daam boy yu ma bëgg ñu fekk sabar si toog fii ñi ci buntu bi taxaw happy birthday was Budelu Simone. Happy birthday, Bergaston. Hey. Eh. macha allah Youssou mbokk yi mbokk ñu ñu indi ko eh, Balla ak Boy Niang xaaral xaaral xaaral non non Balla Gaye ak Boy Niang ñoo koy jàppoo yóbbu ko Balla Gaye Balla Gaye 2 Balla Gaye Boy Niang leen Boy Niang tegal sa micro tegal def ko sa poos waaw def ko nice waaw ñoom ñaar ñoo la koy jàppoowal yóbbul la ko Boy Niang Balla Gaye yéenay jël gato bi yóbbul ko Père Gasson fële <laughs> jàpp leen table bi yéen ñaar voilà

Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bés bu dellu si mon cher Eh, baal ma baal ma baal ma baal ma Flow kaay taxaw ne ngi ñuy bégal yi kii ngeen dégg muy way mooy ndaanaan bi Edmo Flow tey moom moo ñëw moom moo ñëw wayal si papaam Gaston Mbengue joyeux anniversaire bon déjà mon flow un mot pour pour pour Père di ko ñaanal gudd fan ak wér. Ah. ndax mu ñuy tëggal ay combat yu gën a mag yi. waaw yu gën neex yi ñuy gën di ñëw di gën di ñëw franchement ba ñuy nekk xale ba tey ñu ngi koy suivre. ndeysaan mu nekk kontaan ñun làmb suñu yëf la. waaw. moo tax tey ma teew fii nii mhm. par le biais de Makane vraiment mhm. mu nekk euh, une fierté pour man ma taxaw woyal ko muy symbole ci lamb mhm. et c'est une fierté franchement le premier di nga ñëw stade premier janvier VIP incha allah incha allah kontaan nañ ci yow ñu ngi lay jaajëf Papa Gaston say doom njaboot gi ñëw defar lii waaw waaw xaalim ngay baayam lu din yaaka yow yaay jaag bu neexee yow la si faa mboot mi ci daganaay samaam gasoo xaali mbeng metti woon na lool làmb ji jaaxle lañu woon bi mu mettee yow lañu gis xaali mbengay sa baay mm-hmm. Sénégal déglu leen ma ma way la doon king baayu makan xaw fu la ndaa di jaar Sénégal laaj naa leen baay bu mel nii ku ko am loo di wax daga na déglu leen ma tey laay way seen doom ji njàmbur déglu leen ma tey laay way seen doom ji Gaston la nu koy woowee Aminata Mbengue Ndiaye nga bokkal yee lamb bu ca góor nekkul jigéen a koy moom bàyyu makkan lii daw na yaram. macha allah waaw waaw ma bekkaay sa baay suñu kër la yaroo jéeri ngóone ma woy. déggal loolu. ki may bëgg a woy. Hmm. mooy bàyyu kan mi bëgg sëriñ saal yi borom daara njurul borom jàpp nal xabaan. ah nga njëmbaak wali mat kuy gën na gaso xaali mbeng. jembaak bay waali njaay a Touré dundale ba say may di baawaan. jërëjëf kontaan nañ ci moom kooku mooy Madiagne suñu frère la. xam naa ni Père un mot lan ngay wax ci lii njaboot gi joxe ndax cadeau yi pareeguñu makan xa waaw xaaral Père joxe un le mot après ñu ñëw ci cadeau yi. jërëjëf euh, Modou Mbaye mon fils. Mhm. su ma saa yoon nag sa papa tey dafa doon taxaw. dëgg la. parce ah. sama xarit la ci yàgg nañu ci. dëgg la am na solo. ndax dëgg la. bon mais nag soo taxawee rek mel leen taxaw ndax yéen dàq ngeen soxla làmb ji sànq wax nga ko xewi ngeen xewi ngeen donc may euh, féliciter d'abord mbër yi ñaari mbër yi muy Balla ak Boy Niang samay doom lanu ñu def fi it loo xam ne tey bégal nañu Sénégal gi man lii séenu ma ko woon sax tey yàlla xam ne dañ maa bett magan daf ma bett ndeysaan parce que man sama anniversaire tey dama koy yendoo fête hmm. ma ciy gërëm sama doom yi tey dañ ma ko feeteel fële ci almadi mhm. ba defoon naa ni jeex na ndeysaan far ci guddi gi ma jaar sama kër maris <laughs> sama yeneen sët yi feeteel ko mhm. ma ñëwati fii muy ñetti feet mhm. magan bi bu defee lii man euh, daf ma bett xalaatuma ko woon yëguma ko woon mais lii lépp sant yàlla la dëgg la man njaboot rek laa am njaboot may tax may dund mën na noo concours man ci lu ne mais njaboot man ku ma ci concoural dagal naan naa la gañe nag waaw loolu moom euh, am naa ci macha allah lu ma wóor macha allah parce que man sama àddina yëpp njaboot la samay mbokk samay njabootu papa samay njabootu bopp samay njabootu frère ndeysaan donc magan maa ngi leen di remercier kontaan naa trop ci yëf yi mhm. euh, yéen yow du ma la tudd ndax géewalu Magane nga. Mhm. <laughs> Serigne Mbaye man waaw waaw maa ngi tudd ah, Serigne Mbaye Serigne Mbaye donc daal maa ngi gërëm nag surtout. Mhm. waa Gaston production yëpp. Mhm. ñoom Abdoulaye Ndiaye ñoom Alioune Gueye. Mhm. Gaston euh, Makan. Mhm. ak rakkam yëpp nag góor ak jigéen. ñoom ñëpp. Eh, jox ma loolu dañu nekk une famille unie. famille boo xam ne ñoom ñëpp ma bëgg. da ngay sax waaru. donc loolu ma ciy sant yàlla. waaw mais nag di gërëm aussi sama njaboot gii nga xam ni samay jarbaat samay doom samay rak. di ay promoteur yàlla na yàlla sàmm. yàlla na yàlla yokk promoteur yëpp. coow yi na ci làmb ji et tout mais yooyu yëpp am ngeen kilifa goo xam ne ñu koy wax biraas seen mm-hmm. yooyu yëpp dana ko réglé mm-hmm. su neexee yàlla ak yonent bi mm-hmm. li ngeen bëgg yëpp dana am ci làmb ji parce que làmb foola rek daf ci am ay réalité yoo xam ne kenn mënu ko teggi teg teg fi leneen donc euh, na ngeen euh, rek seen communication seen digganteeg waa CNG ci xam ni lépp lu leen ci naqari aussi su neexee yàlla yonent bi biraa dana leen ko régleel mais mbër yi aussi lépp lu leen naqari biraa dana leen ko régleel ak waa CNG yëpp ministre bi loolu la bëgg le président Macky Sall joxe ci instruction aussi loolu la bëgg parce que fi ñu toll loisir ak jàmm la ñu soxla ci réew mi te loolu moo fi am su neexee yàlla. Papa Gaston. Mhm. lii lii lii pratiquement. Uh-huh. say sët ñoo la ko defaral. macha allah. tey moom sa tey moom. say sët ñoo la yi tey kontaan ci suuf tey damay jot ay ah. damay jot ay cadeau. Mm-hmm. war naa cee mën a ubbi boutique sax. waaw <laughs> lii ma doon laay sa doom. Mhm. moo la ko jox chéri Marème. Eh, waaw moo la jox loolu <laughs> sa cadeau moo nekk nii. xataay yi may indiloon ah. ndax ci wër biir jàllaleel foofu. Ah, waaw mais dama buggoon dama buggoon gannaaw ba def nañ lii ñu dellu léegi ci palaas ya mbër yi toogaat ku nekk ñu jox la kàddu fa nga toog. ñu waxtaanee ko fa. kontaan naa allah sama président Dieye. dafa am trophée yi ah bisimilah président Dieye ñëwal. ñoom les sànq tudd naa tudd naa Bécaye mais man kontaanu ma sax ci Bécaye. Ah, ah. ci ci Mbaye seen sa macha allah ndeysaan macha allah loolu am na solo am na solo.

waaw Père Gaston. waaw ñuy gërëm famille Pa euh, euh, Pape Seck. moom samay doom la moom. man ak seen bàyyi la woon démb. mais itam ñuy ci occasion bi aussi ñu ciy profité parce que Sénégal ñun ñëpp benn la di féliciter sunu xarit sunu lépp. Mhm. muy El Hadj Ndiaye. Mhm. sunu sayoon day taxaw. da mën ngeen koy yóbbu teg ne. mais itam di ñaanal yàlla. ak di féliciter sunu xarit sunu frère Youssou Ndour. ci li mu ubbi barki démb. muy impact bégal Sénégal gépp bégal képp kuy artiste bégal képp kuy borom télé bégal képp kuy sénégalais. Mhm. mu def loo xam ne yàlla na ko yàlla mottal yàlla na ko yàlla àggale yàlla na fi def yeneen ak yeneen. amiin amiin Youssou Ndour jërëjëf. jërëjëf Birane Ndour waa groupe Futurs Médias yëpp jërëjëf. mais jërëjëf El Hadj Ndiaye ak Marème Ndiaye ak 2STV gëm. jërëjëf Bala sa micro joxoon nañ la ko ah. jërëjëf mbokk yi loolu am na solo lii nag bu ngeen ko gisee c'était juste une façon de faire une pause parce que ñaari mbër yi béggal nañ ñu fi ci lu am solo ñaari mbër yi waxtaan nañu waxtaan wu am solo macha allah lii dañ doon def pose bi ngir may leen ñu soufflé waaye tamit bégalaate bégalaale ki nga xamante ne mooy suñu père Gaston Mbengue suñu papa Bada Dione ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ci sa jàppale ci làmb góorandooy le président des amateurs ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di kontaan ci yow sécurité bi saa bu matee rek xam leen suñu papa Thion mi ngi fi mbokk yi dañ leen di jox élément bombardier ñu seetaan ko ñu ñëwaat. joyeux anniversaire à Gaston Mbengue Salif Mbengue le Don King de la lutte sénégalaise sunu mag sunu xarit sunu nijaay ñu ngi lay souhaiter la totale di la wax ni euh, dundal sa dund am na njëriñ ci réew mi ñoo ngi lay ñaanal gudd fan wér gi yaram. un joyeux anniversaire. jërëjëf kontaan nañ ci moom kooku mooy Serigne Dia Bombardier moom moo souhaité joyeux anniversaire Père Gaston. léegi nag damaa bëgg micro bi nekkoon foofu Père Tafa. waaw conclusion bi. sama ku nekk beneen question rek. ayca parce que quand dans le sport moom. on parle des choses très sportives. loo wax. li ma bëgg wax moom mooy damay euh, sanq ci kan laa commencé woon euh, ci booñaa laa commencé woon ma ñëw kon bokk ci euh, ci Douarnès Balla. question bi ñoom ñaar laa koy boole. waaw dama foroon dama foroon ci wayu béy. waaw wala wayu nag. waaw xëy na ñeenti weer ci ginnaaw mbaa ñetti weer ci ginnaaw. waaw ñaari mbër yëpp ku ci nekk doon doon waaj ba mu mel ni suba rek ngay dem extérieur préparé wu ji. waaw ñoom ñaar nag mu mel ni mujj gi kenn mu gis sax gën sa buntu kër. waaw kii yem na pikin kii yem na Géejawaay. waaw bëggoon naa xam lan moo tax xalaatuñu sax dem préparé ji extérieur parce que loolu tamit lu jar a càmbaraat la. Mhm. parce que je pense que ne am sa ay coach mhm. ñu tàggat la à bas âge dem ak ñoom di dem ak ñoom ba dégg daal yi saa bu événement bu mag amee rek nga ne poy mat baleen fa dem wuti wuti feneen leneen loo xamante ne bokk la li am fii loolu tamit lu lu mbëri war a concentré wala may laaj ñoom ñaar dañoo tiitoon wala ñu jaaxle seen état physique ba bëggoon dem wuti ko feneen mujj gi nag ñu bàyyi ñu toog fii ak lan moo tax ñu toog fii salaamaaleykum wa rahmatulah di leen ñaanal nag yéen ñaar tal ak fekkee ak jàmm ak salaam ngeen bëri ko kenn bañ a xoosu waaye kurpeñ ngi tàkk lool bëri ba neex lool yuuxu yi bari lool kii daan daan kii daanu daanu dimanche bi ki topp làmbaam les làmb des làmb salaamaaleykum wa rahmatullah c'est une question commune Boy Niang répondre leen waaw Modou comme ni nga ko waxee rek affaire yi moom préparation bi moom li ci am solo rek mooy nga nangoo liggéey nga dem extérieur ak nga toog fi yëpp benn nga nangoo liggéey rek extérieur gars yi dañ koy bëgg parce que bu ñu demee foofu récupération bi. Hmm. xam nga loolu la rek mais fii moom ak foofu ñoo yam. ok sportif bu nangoo liggéey rek li mu bëgg mun na ko am quoi incha allah. waaw loolu la moo tax nag xam nga ñun ñu ngi fi toog quoi ànd ak suñu ay mbokk. Hmm. ànd ak suñu ay xarit ànd ak école de Boña bi yëpp. Hmm. di liggéey te ñu ngi sant yàlla bu baax a baax li ñu bëgg ñu ngi ko am nañ ko sant yàlla bu baax a baax. Balla Père Tafa loo koy tontu. waaw jërëjëf Père Tafa que question bi nekk na question bu am importance. Euh, man damay jàpp ne maa ngi doog a dugg ci làmb moo tax ma toog fii. Uh-huh. waaw je pense que ne loolu la parce que kon lii laa débuté euh, dama bëgg tamit aussi tamit jeexalee lii suma carrière incha allah di ànd ak suma école de lutte. Uh-huh. waaw donc coach bi di Lamine Faye donc vraiment muy ànd ak ñun di liggéey. Uh-huh. xale yi nangul ko ñoom Youssou ñoom Fisa Balla ñoom bi Seck. ak saa kees ah di buuse bu baax a baax ci mon ami ak euh, Maam Laay donc ñu préféré toog fii aussi tamit vraiment respecté coach si coach yi ñu am fii rek moom la ñu am fii xëy na peut-être fii temps de récupération bi xëy na loolu loolu lañ doon dàqantal ko nañ doon profité waale mais gis nañ aussi combat bi ñu jëm amul de temps de récupération guddi bëccëg saañ ko centré jug damay sport loolu lañ ko jàppee ko moo tax ñu toog fii nag vraiment. ñaari mbër yi gis nga li ñuy def fu ñu dajee waaye li fi def tey raw na. bisu le premier organisation bisu le premier Makan muy bis boo xamante yow mosoo tëgg le premier Père Gaston moo daan tëgg le premier <laughs> pour la première fois Makan mee ngi di tëgg le premier loo wax. comme d'habitude rek man damay topp ci tànkam euh, su dee leneen am na fi rek lu ñu indi la as lay doon rek. Mm-hmm. mais jàng nañ ba pare. donc euh, il sera toujours la pour dara su naree dëng dana ma ne defal nii. pour ñu jubbanti ko mais incha allah le premier dinañ dalal xelu ñëpp dinañ jugg ci journée boo xamante ni àddina moo koy xaar euh, di ci remercier au passage nga xam ni 1xBet moo ko jëndal waa Sénégal. Mhm. kon dinañ ko mën a seetaan ci télévision nationale fii ci Sénégal. incha allah sinon waa diaspora moom dinañ ko mën a seetaan ci seen affiche point dinañ ko mën seetaan ci seen affiche Kookam d'ailleurs mën nañ sax commencer jënd su leen neexee. à partir de maintenant. nga xam ni ci lay gën a yomb. ok après dinañ euh, jox parole. Euh, non déedéet le gars il est là xame naa ko xame naa ko c'est mon ami présenté ko mu wax ci pay-per-view mm-hmm. parce que dinañ dem sax. à partir de mois pro enfin mois mois dugg nañ ci novembre. waaw tey le waaw ku jënd pass bi à partir de maintenant. Ah. Balla Gaye dinañ ko jëli séance d'entraînement. ki jënd dana mën a seetaan booy Niang moom tamit pareil. la même chose ku bëgg gis seen séance d' entraînement su ñu duggee ci pass pay bi dina mën a seetaan foofu séance d' entraînement. Eh, bu fekkente ne séance d' entraînement Balla ak Boy Niang site yi nekkul ci pay bi dañ koy teg nag. no duñ ko teg. ah duñ ko teg non non City City duñ ko teg. su Modou Mbaye demee foofu pour jël Balla Gaye ak Boy Niang mën na ko teg. su su ma fayee xaalis dina ko dina ko Modou Mbaye day fay xaalis pour teg ko waaw su ma ko fayee kon xam naa ne yow encaissé go ndax bu dee xaalis nga xaar ku ma jox la. <laughs> man rek mais nga baal ma maa ngi profité di nuyu suma mag Lirou Diane. Lirou Diane vraiment maa ngi koy remercier. monument Guédiawaye monument Guédiawaye mhm. parce que gis nañu taxawaay bi nga xamante ne ko taxaw fu ñu dem rek day ànd ak ñun. ndeysaan bàyyi yitteem baay njabootam. Mm-hmm. vraiment bu xale yi naree dëng mu teg leen ci yoon. maa ngi koy sant di ko gërëm di remercier guy gi aussi bu baax a baax. guy gi guy gi. parce que waaw waaw. parce que nekk na nit koo xam ne nit ku baax la gis naa ko quoi di nuyu yi nag géejawaay yi nekk foofu yëpp gis naa seen gëm-gëm ak seen. gis-gis kii lu mu la kii lu ma baar rek. bo a Niang nga ni loo bëgg a wax. <laughs> saa dama bëgg benn fànn bu turu Boy Niang fànn bu turu Boy Niang jëloon <laughs> na. bu ma la daanee ñëwul gàll ma taral la. bu ma la daanee ñëwul gàll ma taral la. ñaan ñi seen combat bu jeexee. saa dama bëgg fànn bu turu Boy Niang. waaw yombul de. sama mbokk géwél nga. teraanga laa sëkk ak yow. <laughs> waaw sama yi maa leen nuyu de. dinañ jox seen wàccuwaay. maa ngi nuyu Modou maa ngi nuyu maa ngi nuyu <laughs> maa ngi nuyu suñu sama papa sama maam. Eh, alaaj man suñu bay di ko nuyu bu baax di ko ñaan yàlla yàlla may. Modou ko waaw bu baax a baax. Modou maa ngi nuyu maa ngi nuyu 200 pour cent Pikine bi. Pikine bi waaw. 200 pour cent Pikine maa ngi leen nuyu bu baax di leen jox seen. cër ak seen wàccuwaay yi ci nekk ñëpp. waaw di nuyu sunu mag Eumeu Sène. di ko jox wàccuwaayam bu baax di nuyu Ama Baldé ak mafia Thiaw sa xir bi maa ngi nuyu gaa yëpp. soq di ko ñaan suñu boom defal ko ndam Ama yi suñu boom defal ko ndam ëmma tamit li muy xaar bu ñëwee suñu boom defar ko ndam incha allah nuyu sama papa Demba maa ngi koy nuy bu baax di ko jox waa waaye waayam bu baax. yow da ngaa toog sa kër am loo xool si Balla Gaye ba yeb ko wala lan la. non du yeb làmb la rek ñoo ko seq xam nga su ma su su waaye làmb moo làmb moo làmb moo ñu boole. waaw te du weesu làmb. Mm-hmm. yaa ngi dégg. dëgg la bu ñu paree jàmm la ñu waaye nag maa ngi ñaan suñu borom moom yor ndam. mu may man ndam le premier janvier mm-hmm. ci bàkk changé sal ci bàkk Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu cerno yi cerno uh-huh. yëpp bàyyi ma cerno yi maa ngi nuyu ñëpp waa kër Cheikh Abdou Khadir Jilaani sunta dew li yaa maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax di nuyu sama mbokk séeréer di wax fogole séeréer mbaxe sim naa nun Modou waaw eh nga ni boñaa nga ni e eh, boñaa yégali leew déglu déglu déglu <laughs> moom déglu moom dafa ne ma ba xam séeréer laa tey waaw man maa ngi sant ngom dëkk Samb ñëpp xam nañu man sama ay bàjjen ak sama ay. kon waaw déglu ma ñëw déglu ma ñëw sama ay bàjjen naa làqal léegi sama nijaay dégguñu sax olof. waaw la. a mm. mm. dégguñu sax olof. min a séeréer refum pire. nga ni ma. a fogole a fogole séeréer mbexe simna nuun o mbi nuun o ndaa nuun mbexe xoya a a a a a a séeréer ah. mm. refum eh. <laughs> pire eh. tap tap la jàpp tànk xanaa <laughs> eh, am na solo di nuyu di nuyu ancien gloire yi ancien gloire yi nga yëpp maa leen nuyu suma papa yi Balla dafa def yoonam. ba yoonam jeex na taxaw maa ngi ciy yëngu dama ciy. magal foo tolloon boo ko nee rek ñu da ngay fot. non non ngay nax sa bopp de. fot ngay def pare ko. Modou Mbaye waaw lekk ko pare ko bu yàgg. ma waxuma laa laa lekk damaa teel a dugg rek. pare nga bu yàgg jàmbaar pare ko ma de. pare nga bu ah, yàgg moom dafa maa dugal ci làmb. moom dafa maa hmm. gën a dugal ci làmb. kii mais maa ngi nuyu suma mbokk soosee waaw moo tax. sap sap rek damaa kontaan. waaw waaw maa ngi nuyu suma tukulóor yi bàyyi nunke yi bàyyi ma kenn mais déggoo tukulóor man ding bee ah, <laughs> eh? Casamance bee eh? naa ma eh. ak booy ña naa buutee naa boy naa buutee Casamance bee maa naa buutee naa boy ee booy ña lu baa la wax <laughs> Modou eh, eh, boo ñaa xaaral xaaral xaaral waaw ñëwal Modou waaw. Eh, waaye sëñ bi nag ma non may ñu fii rek nag fii la. garaawul nice waaw. waaw Balla ñëwal Balla ñëwal fii. waa gars yi déglu waaw déglu déglu waaw may wax dama koy dama indi bi rek. moom suma benn mbokk bu gën xet la. di wax ne non du génn xet moom soose la li mu may làq nee na ma li may wax du am. loolu lay wax. waaye maa ngi leen di xamal ne sama mbokk soose yi bu baax a baax ak joolaay ak balantay ak saraxule yi benn mbokk bu génn xet a ngi nii. waaye yàlla ci yàlla yi eh, eh, eh, Boy Niang

di nuyu sama mbokk xam xarit soose yi sax laay wax parce que ñun ñëpp benn la Sénégal la déggoo soose mais déggoo ñoo bokk ne ñoo bokk baay non kii li mu laax baaxul <laughs> yaa ngi dégg Modou Modou waaw comme li ngay wax rek aha Pikine ngi nuyu ñëpp cité pépinière fi nga xam ne fa dëkk gis naa seen taxawaay rafet na bu baax a baax cité bi euh, mais boo mais boo ñàkk mais dama la wax wuy ma fii sama xaritu douanier yi mais wuy ma boo ñàkk waa Thiès boo ñàkk boo Niang Balla Gaye 2 yéen ñaar da ngeen a da ngeen fii tey signature de contrat boo xam dañ leen di génneel yéen ñaar ngeen xool pare ñu de hmm. yéen a ngi nuyoo nii mbokk yi pour noppaluwaat noppalaat gars yi dañuy woo ndaanaan bu mag ki fi ñëw léegi wayal Père Gaston Edmond Flow mu ñëw playback wayal ñu gars yi ñu tàcc ko mu yegg si waay yi aca ñu dalal Edmond Flow la régie à vous championnat du Sénégal. On l'avait cuisiné pour ceux qui ont la médiocrité musicale. Celle-là est locale, on l'amène à l'échelle internationale. Tony de Bomba Kingdom, la marque elle est royale. Ñëpp ko télé ma andi ko, Bamako bëgg ko akimo. xam na ni moomu ko Sénégal jot na ngeen gërëm Edimo, Edimo. Je l'ai reconnu depuis qu'il a gâté le corps des gens. Là on est en sabar. tu ne vibes plus quoi Le rythme est là, tu reconnais mon frère, welcome to Dakar Ma nigga ba il déconne, li nga moom la rëcc nga bàkkaar ba jël dëgg bi ba fasal li màgg ji dëgg bi tey nga bañ suba nga nangu ni taali beeg sëñ bi tàccu leen waay tàccu leen ni taali beeg sëñ bi waay tàccu leen waay tàccu leen ni taali beeg sëñ bi ni taali beeg eh, ni taali beeg waxal ma kee xamal ko ne que ni maa nekk yaa ko moi ko ne que ni maa nekk yaa ko moi qui peut faire ça avant moi y a personne qui peut faire benn yoon utuma raccourci ngir am ba mu ah. fësal li mangi ci dëkk li mangi ci dëkk day nga bañ suba nga nangu ni taal li bëgg sëñ bi yow mi xam nga ki koy génnee ci dëkk bi waaye et moolu waa kontaan nañu bu baax frère. merci mais mais mais maa ngi lay dégg léegi yaa ngi wax ci làmb suñu culture la c'est vrai. mais noo gisee. c'est magnifique en fait. ok waaw euh, loo xamante ne la ñun dañ ciy identifié wu. macha allah biñ nekkee xale ba tey tëgg ñun ñoo ko moom am loo xamante ne kii lekk ceebu jën moo ko. moo ko moom waaw. waaw ñun la ko donc tey jii nii bu toogee suñu kër di seetaan wala ñu dem stade di seetaan. Mhm. c'est une fierté ñuy gis li nga xamante ne si suñu culture la. Mhm. ñu koy fësal di ko jëmal ca kaw sponsor yëpp di ñëw gars yëpp di ñëw. Mhm. donc mu nekk lu rafet vraiment di ñuy ñaan mu continuer avec la paix. yi di ci nekk non violence gars yi dem stade seetaan lamb yi mu jàll ci jàmm. xam nga ñi ci dellu seen kër yi ci jàmm. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax moom tamit. ndaanaan la Edmo Flow. bokk ci ndaanaan yi nga xamante ne ni bu ñu woyee mu neex dégg ngeen waayam boobu nga xamante ni it la mu am solo lool. mbokk yi am na yeneen ndaanaan yoo xamante ne nii ñu ngi ci salle bi waaye dañuy dellu àndaat ak yéen su ma ndijaay bisu le premier ñu daan gis bu Gaston production tëggee ñu daan gis sa taxawaay bu yeneen promoteur aussi tëggee ñu ngi gis sa taxawaay mais bisu premier tolluwaay bi ci làmb Pape Mamadou loolu dañ ciy sawar parce que dama kontaan tey parce que maa ngi naan la léegi après le combat. Mhm, waaw. après le combat ñaari mbër yi bokk nañ ci mbër yi dàq fecc ci làmb ci mhm. ce qui important na nit ñi ñëw ak yar ak discipline. Mhm. waxuñu kenn yaradiku na mais le premier. Uh-huh. fête la. fête nag bu ñu koy def jox ko ñaari mbër yoo xam ne xam nga mbër mën ngaa mën a bëre. te doo mën a xeex. mbala nga mën a xeex te doo mën a fecc. waaye Mamadou ñaari mbër yi kenn ku ci nekk. tëj nga arène nationale. Mm-hmm. te tëj arène nationale tey bu la yàlla dimbalee ñu war la yóbbu le premier janvier li am ci sécurité. Mm-hmm. Gaston production buy ñëw oto yi sotti ndox mu tàng da nga leen di gis. Mm-hmm. police bi dañuy jalonné commandant Thioune ngi nii. Gaston du bàyyi dara sécurité gën a lu mu mën a am. parce que nee na li ma yor ku ko yàq lu mu la jaral jaral na ma lu ko. kooku nag bu wootee le premier janvier événement bu toll nii diggante Boy Niang deux mii di war a bëre ak Balla Gaye 2 kii dañuy càppaacoli hmm. kii di le lutteur di peuple hmm. ñaar ñi xajuñu ci arène nationale hmm. làmb ji toll noonu nag li may digal du ñu xaar ba bis ba nit ñi di xëccoo ay billets. waaw parce que lii événement la. waaw te événement gëj na am ci première janvier bu mel nii. dëgg la ma di la wax rek ni la boo gisee ni promoteurs yi regroupé woo ñëw. président ji seen ànd ak ñi mu àndal ñoom ñëpp ak tous les promoteurs Ibrahima Diop. de xam naa ci kanam loolu daañu ci wax. moom it ku ñàkk ki ñaan la. Gaston papam la mu tëgg Ama Baldé. jël ko boole ko Gris Bordeaux. mardi bi di ñëw ñoom ñaar fiy teew. mu waxtaan ak man ni ma trophée bi Gaston laa koy. tuddee guñ de ren jii ñoo yéen. <laughs> dégg nga moom jël bis bi delloo ko ko. Uh-huh. Ibrahima ñàkk ki ñaan. drapeau père Gaston. na ku mën jox bésam. ah mën na ko dem bu ko neexee ne keneen mais dafa xool ni. am na lu nangu ko kon. waaw ngi ñaan ci réew mi jàmm. Uh-huh. di ñaanal muy Balla Gaye mii di ko ñaanal wér di ñaanal booy ñaami wér ñaari mbër yi dama gis léegi ñu signé joxe seen bopp te wax dëgg yàlla nit bu jëlee ay millions xaatim ko. Hmm. jox la ko nga ñëw taxaw ñaari ñii kenn ku ci ne xam nañu sore nañu koy nax kenn. Hmm. te nit ki booy liggéey li ngay ñàkk da bëgg mu jaar ci yoon mbaa lew dëgg la ñu leen di di leen ñaanal ñaar ñëpp wér mm-hmm. ndax kenn ku ci nekk jàmm la am te yow lañ séq ak yow mm-hmm. yàlla boole ñu bokk milieu bi mais bokk ci mbër yi ma gën a respecté parce que mbër yu am discipline lañ mm-hmm. xëy na nag làmb ji moo ne toll xëccoo mën ta ñàkk farit aayut parparloo moo aay ku ne sañ nga am fa nga féete waaye parparloo moom la bañ di wax daal di gërëm tous les promoteurs ak managers yi. Mm-hmm. Aline Guèye ngi nii Gaston production la nekk. bi mooy ubbee président Bourkhane Wade ngi nii toog nga xamante ni mooy président manager yi ñu waroon ko nuyu non seulement du manager booy ñaam mais ñu ak beneen yi fi nekk ak ñi fi nekk ñëpp mais di la ah. wax ne Fadam a ngi fi ak ñoom góorandooy comme non maa ngi loolu mais daal Mamadou kenn waxatu ko le premier janvier combat bii ah. lépp luy tax nit ñi ñëw ci jàmm ñibbi ci jàmm jaral nañu lépp luy dinañ ko ci wane s'il vous bu ñu toogee ci groupe bi gars yi yéen bu leen fu wax ne ñit a ngi fii kii a ngi fii gis nañu ñëpp ndax bi ñuy tàmbali tudd nañ ñëpp kon bàyyi leen rek ñu liggéey ñu yeggali joxal ma jéey seen suma nijaay micro bi suma nijaay gis nañu cadeau yi nga xamante ni jox ngeen ko léegi Père Gasson bisu premier loo ci wax waaw Modou damay wax salaamaaleykum Sénégal damay wax salaamaaleykum nekk ci plateau bi di nuyu waa 2S yëpp ak téléspectateurs yi seetaan 2S euh, di féliciter ñaari mbër yi toog foofu noonu balaa loolu ñuy souhaiter suñu papa suñu mentor per Gaston ñu ngi koy ñaanal gudd fan gën a yokk di ko ñaanal jàmm moom ak njabootam gépp nag parce que suñu papa Gaston ku ne xam na ko njariñam ci réew mi njariñam ci population bi nga xam ne moo nekk ci askanu Sénégal kon ñu ngi koy ñaanal jàmm anniversaire bi nga xam ne moom la doon feete dégg li mu wax lépp ci fameem ak ci ñeneen xam naa ne gâteau yi ñun dañoo def nii rek mais am na ñeneen ñu des ñu koy indil ay gato ndax Papa Gaston dafa mën nitam dafa mën a taxaw nitam mhm. ñun ñuy ay doomam ñu ñëw fekk ko ci làmb mu tette ñu ci làmb parce que ñun xam nañ ko ci làmb depuis ak moom suñu papa Amed Dieng ñu yaroo ci keppaaru Amed Dieng kon moom dara umpale wuñu ci moom ci taxawaay bu rafet bi muy taxaw kon bépp sénégalais rek war nga génn sa gémmiñ tey ak bu dul tey sax nga ñaanal su papa Gaston yàlla na ko yàlla defal jàmm may ko tranga hmm. ba mu mën a soutenir mbër yi mën a soutenir sénégalais maa ngi nuyuwaat promoteurs yi nga xam ne ñëpp nag bokk authentique ak ñeneen ñëpp xam ne ñoo bokk li hmm. defal ko suñu papa Gaston hmm. ku ci ne àllarba ku ci ne war nga koy génne di ko jox Gaston ci làmb parce que liggéey na ko fii te wane ba tey mu ngi ànd ak ñun di ñu tette. dëgg la parce boo xoolee li mu def dem toogee ne à chaque fois day ñëw toog ci kaw mu ne. Mm-hmm. bàyyi naa def naa ba pare financé naa li may def ba pare mais bàyyi naa leen ak makkan ak làmb ji lépp lu ci nekk te war a defar ànd leen ngeen defar ko. parce que loolu dafay wane ne lépp lu muy def pour njëriñu Sénégal moo tax mu di ko def pour béggal askan wi parce que toll woon nañ fi situation boo xam ne nii làmb dañ noon yàqu nañu ba mbëri di ñii di voyage yi ñi nekkaat ci lii tey bari na mbër yu voyage yi woon tey ñu ngi téléphoné waat encore pour ñëw bëgg a duggaat ci làmb parce que loolu suñu papa Gaston moom manqué woon ci làmb loolu moo tax loolu am parce que euh, expérience bi mu amoon ci làmb ak li mu xam ne daf ñoo war na gën a tette ba ci kanam kon loolu moo tax mu dellu si waat ci làmb gën a jàppale ndax bi mu jëlu see ku mel ni Balla Gaye Boy Niang Eumeu Sène Bombardier Gris Bordeaux ak ñeneen ñëpp mu boole jox leen avance kon dañ dama bëgg ñëpp ñu tàcc suñu papa Gaston gën ko parce que nag làmb ñun bëgg nañ ko lool mais ku ñëw rek ku yo alof Ndiaye dana ku yokkul da ngaa wàññi kon bu mm. mu gën a yokk wann yoon wi kon ñu ngi koy gën a félicité bu baax Modou ñu ngi lay nuyuwaat taxawaay rafet na ñaari mbër nag gàcce ngaalaama deseeluñ dara sénégalais yi bépp bégte bu nit am rek am euh, ñu ñu ngi koy wane. Mm-hmm. parce que su ma ci euh, ci weer wi ñu nekk nii euh, wala bi ñu jógee def naa ci quatorze réew mais réew boo dem rek dañuy laaj combat bi kañ. kañ lay taxaw wala nan la ñuy def. Mm-hmm. makan diaspora bi yëpp ñu nekk Dubaï Italie Espagne. ndeysaan Allemagne Angleterre ah France ñoom Aline ñëpp ñu ngi lay laaj ñu ngi wax ne vraiment. pay per bi nañ ko teel a euh, joxe euh, ligne bi pour nit ñi mën a seetaan parce que gars yi bëgg nañu seetaan tuusu Balla Gaye bëgg nañu seetaan tuusu booy ñaa mm-hmm. bëgg nañu cam ci làmb ji vraiment ñu gën cee bëggee parce que ñu mënul ñëw moo tax bari na ñoo xam ne ni nag jàpp nañu ne le le le le 31 octobre ñu ngi fi. le 31 mm. décembre ñu ngi fi. waaw pour premier cent bi ñu mën a seetaani Balla Gaye Boy Niang. waaw que le meilleur gagne jërëjëf. que le meilleur gagne jërëjëf kontaan nañu ci moom bu baax a baax a baax. Euh, Makan. loo bëggoon a jeexale sànq am na loo bëggoon wax. non sànq dama bëggoon wax prix billets yi. pour le premier. waaw parce que lu musul am ñëw ba ci jour làmb ji muy gise ferme hmm. loolu lañu bëgg def le premier janvier. Hmm. incha allah. donc maanaam bisu làmb ji bëggu leen jaay billet. déedéet. ok yi dafa war a jeex avant le 31 décembre. ok. ci ban système donc partir du premier décembre incha allah. waaw. billets yi dinañ disponible. Ah. à partir du premier décembre. loolu wóor wóor. man damaa garaaw de. non dañu nekk léegi ci monde digital. kenn mënatul trafiquer ay façon billet wala leneen ak leneen. Ah. lépp ci ay QR lay jaar. Ah. loolu après dinañ ci gën a ñëw. moo wax ci billet yi rek. donc euh, bu ci gën a yomb mooy tribune vert tribune jaune. dinañ ko jaayee 5000 francs defe naa ni ci combat bu toll ni booy Niang Balla Gaye suñu leen waxee 5000 francs jaadu. vert jaune vert jaune. ok macha allah rafet na waaw. voilà léegi tribune rouge ñu ngi koy def 15000. extrémité yi ñu ngi koy def 15000. ok annexe bi 25000. waaw wetu digg bi. waaw waaw. Euh, loge présidentielle moom dañ koy def cent mille. parce que y les autorités dinañ ñëw incha allah bu soobee yàlla. Mm-hmm. ak euh, des invités de marque yoo xamante ni ay xaritu per Gaston lañ. waaw euh, ministères yi. ak Waly Balago ak délégation déjà Waly Balago ak délégation loolu rek jar na lu ne. Mm-hmm. Waly nar a ñëw toog def prestation. le premier loolu rek waxaguma ci rek. Mhm. loolu rek événement la. loolu rek événement la. loolu rek donc euh, dinañ mettre tous les moyens nécessaires incha allah ci wàllum sécurité. Mhm. parce que du combat bu ndaw. Mhm. Pikine Géejawaay la ñu wax. xam naa ni Pikine dana njëkkante ak Géejawaay Géejawaay dana njëkkante ak Pikine donc stade bi moom incha allah dana am point de vente Pikine. Uh-huh. dana am point de vente Géejawaay. Uh-huh. ñuy ñaan nag que le maire ñaan que le ba tey mbokk yi wax naa leen maa ngi ci profité di nuyu gars yi nga xamante ni ñu ngi ñuy suivre ci sunu plateforme yëpp Facebook ah Instagram Twitter gars yi yéen ñëpp ñu ngi leen di bëggee mais di ci choisir waa YouTube bi di leen siyaare bu baax a baax mbokk yi di leen xamal ni yéen ñi nga xam yéen a bëgg làmb te nekk ci senegal nekk ci àdduna ci Facebook bi dafa am benn groupe bu tijji bu ñu woowee Face Lamb Face Lamb lépp lu xew. ci làmb dañ ko fay waxtaanee moo tax yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi ci Facebook di ci yëngu dama bëgg ngeen dem ngeen adhéré ci groupe boobu nga xam mooy Face làmb ndax ñun ñi bëgg làmb ñëpp ñu ngi fa gis naa fa Fadam Tou gis naa fa ñoom Baye Balla gis naa fa ñu bëri ñoo xamante ne ay membre lañu nekk ci groupe bi bëgg naa loolu ñu doxal ko ndax bo loolu dina bokk ci luy doxal làmb waa extérieur waa senegal ñuy lonkoo Balla Gaye 2 ak Boy Niang ku ci nekk dafa am loo def Karajo Boy en ah, jërëjëf kooku mooy Boy Niang numéro 2 macha allah am solo waaw loolu jar naa tàccu parce que xale bi li mu bëri rëy na mais duma ko commentaire Balla Gaye numéro 2 lii nga seetaan. waaw li ma seetaan gis naa bërekat. Mm-hmm. gis naa ko mun liir làmb. gis naa koo xamante ne lépp lu muy def da koy calculer te bu ñëwee rek làmb day jeex da koy bëgg a jeexal. ma gis koo xamante ne nag vraiment champion la. Euh, combat yam fi daan yëpp gis nañ ko benn bokkut ak moroomam am na yoo xam ne ñoo bokk mais am na yoo xam ne bokkut ak moroomam vraiment euh, lii mooy làmb lii làmb macha allah macha allah daal yàlla na ko yàlla dafa jàmm. Garaajo kan mooy Balla Gaye. c'est Balla Gaye numéro 2 am na solo Boña Boña li nga gis loo si wax. waaw gis naa combat yu neex. Mhm. <laughs> Balla chéri <laughs> gis naa li mu bëre xam nga li mu bëre neex ko waxaat ko. <laughs> Balla chéri Boury. ah ah. gis naa combat yi neex xam nga. waaw bëre lu neex. Mhm. xam nga day bëre day xeex. Mhm. xam nga day def xam nga. waaw bu jàppee day bëre xam nga ko fekk seen bëree bu la fekk seen bëree. yoo mhm. xam ne xanaa de champion la. ñu Gaye numéro 2 ci li mu wax li ma ci jàpp mu ne yow dangay ñëw ngir dangay ñëw jàpp si ngir mu da ñëw bëre si ngir mu jeex. non boo bëggee dégg dëkk yi bu ñu wuree moom wala dañoo mën a bëre ba ci kaw tribune bi bu ñu wuree bëre rek benn benn. waaw ah dina gis xale bu mën a bëre de. waaw parce que bëri moom dama ko jàng jàng naa ko mbapat naa tarbiyu naa ko daal. technique te xam naa ne moom it day wure. waaw waaw te action sur action. Ah. waaw bu ñu teglante rek ñu bëre ba yëg mu jeex. voilà amateur yëpp kontaan. bal da nga bëre da nga ñaan suñu borom nag. dafa moom moo daan ko jël leer. ba mu gën a werante incha allah. waaw léegi mais Balla lii booy bi wax xam nga ni loolu war na mën a am ci combat bi. mais moom nag xam nga man Mourou Mbaye bëgguma di gaaw wax. waaw xam naa ne bu mu waxee dama koy def ndëgëm neex na yàlla suñu borom mhm. lii mu wax nii boo ko bëggee. waaw. combat bi est-ce que dina def sax une minute kon ni mu ko bëggee. arbitre bi prip ñu xeex bëri. Hmm. non bëgg naa gis bëri nag vraiment bëgg naa ko gis champion. waaw fekk kon maa la ko gën a bëgg. billaay bëgg naa ko. xam nga bëgg fu mu fanaan ak ku bëgg. ku ko wéttali ku ko wéttali tëjal buntu bi du leen boole. bëgg naa bëgg naa ñu bëggal amateur yi. non mais a wëree bëre sax. bëggal sénégalais yi. waaw dañuy li ma wax nii daf ma daf ma ñor lool. bëgg naa ñu bëggal sénégalais yi. incha hmm. benn problème. parce que tey làmb foofu noobul la ba nga xamante ne. Hmm. yow bu ñu wanee say image kenn ku nekk bu xoolee image am. waaw moom xolam day sedd quoi. Hmm. kon ñun saa su ne rek nañuy rafetal rafetal dafa am solo lool. waaw après lii dañuy bàyyi bëri du ko seetaanaat. Mm-hmm. moo tax maa ngi ñaan képp kuy ànd ak mbër moo xam lu mu munti doon nay rafet. Mm-hmm. am ndax lii bëgg naa ko daal. Mm-hmm. champion bëgg naa kon li nga waxee nii. ñu jëfee ko noonu incha allah amul benn problème. incha allah maa loo gën a bëgg incha jàmm. su ko defee xam nga comme ni nga waxee rek defee demi flexion def rotation làmb ji nga def. pas de tànk ca waxal yooyu ma faxas ko day jeex day wëndeelu rek billaay day jeex eh waay ndaw Samba yàlla ma yàlla may day wëndeelu rek yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jaamu mbokk yi bisu le premier inshallah bis la boo xamante ne nii ñaari ndaanaan yi ñu ci boole Modou maa ngi nuyu waa kër sëñ Afia Mbacke moom sëñ Fallou waaw gars maa leen nuyu baax di leen bu baax mm. waa mm. baax a dafa am ñoo xamante dañu toog ci tribune bi te ay nitu làmb la. Modou nga mayoo ma nuyu waa Mbacke Kajoor waa Kër Sëñ Baara. waaw maa ngi leen di bëgg bu baax man waa Kër Sëñ Baara laa. waaw Kër Sëñ Baara maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax waa Kër Sëñ hmm. na solo jërëjëf Modou. mbokk yi Baye Balla mi ngi ci turbine bi toog Ibrahima Diop nuyu nañ la Kajoor production Baye Balla. di nuyu Dieye Dieye Dieye geste bi rafet na. vraiment ah ñu ma ak njabootam. ndaanaan la ñu ngi koy rafetlu. ndaanaan la en tant que suñu mag en tant que suñu lépp maa di nuyu Dame Kandji di nuyu gars yi ànd ak mbër yëpp vraiment lii moom. nañ ko continuer quoi ndax sénégalais seen xel dal ñu continuer ko signature yi neex wax ju ñaaw ba ñu jib maag moom ñuy bëre maag moom ñooy jëmante maag moom ñooy mayante xaalis na rafet incha allah loolu rek lañ bëgg incha allah non ci ci incha allah amul benn problème incha jàmm moom kuñ ciy woo rek xam nga ñun dañu ci fekk quoi parce que ñun tamit xam nga ñoom tamit seen booy bee moom anam sax yow mun tooñ sa booy bee sa bëñ rafet yi. ñoom tamit ñoom tamit seen mbër mooy ambassadeur pour la non violence bu leen woo ci jàmm rek. ñu jàmm leen njëkk daal incha allah. Mm-hmm. maa ngi nuyu Modou ñi nga xamante ni muy premier ministre Matar Ba mi nga xam ne moo fi jógee. maa ngi koy nuy bu baax di ko jox cëram ak wàccuwaayam ak ministre des sports actuel bi nga xamante ni mooy Yankhoba Diattara maa ngi koy nuyu bu baax. di sama mag Pa As France maa ngi koy nuyu. mais di nuyu waa Badiari Casamance. mais techniciens yi dañoo toog fii. dañoo war a wax si yéen waaw Modou ma nuyu waa Badiari Casamance. <laughs> def Casamance. sama dëkk la dugg. ginnaaw Malfara Modou maa ngi nuyu bu baax a yàlla xam na ne. ah Casamance dama fay nekk 3 ba 4 jours dama fanaan ci nekk. pour wal ni fa laa bokk. dañ lay teral yàlla xam na ko. billaay de ñu baax lañ. waa Casamance waa Badiane maa leen nuyu bu baax a baax. di nuyu waa Gambie bu baax a baax. Baye Bala jógal taxaw. Baye Bala ëppale moo fa benn yoon incha allah premier. non yow yow rek ci presse bi. bu baree ba bari deux minutes nga am Baye Balla bisu la premier loo si wax. Euh, jërëjëf euh, moom du mbay maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di nuyu téléspectateur yu la 2STV la télévision autrement mm-hmm. di nuyu assistance bi yëpp. di nuyu le président du CNG de lutte di nuyu suñu père Gaston di ko souhaiter joyeux anniversaire ah di nuyu suñu père Moustapha Guèye di nuyu père Thiam ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi jéglu bu baax a baax. xam nga Mamadou mbay loolu mënta ñàkk ndax suñuy kilifa lañ toog ci jotaay bi. waaye li ma lay wax rek mooy bés bii dafa nekk bés boo xamante ni. Mhm. bés bu doy waar la ci wàllu làmb mbay Mbaye li ko waral mooy bés bi. nekkul ni booy ñaam mooy bari de ak Balla Gaye de. Ah. mais Pikine la ak Géejawaay. bu njëkk da nga daan wax ne Pikine ak Fass ñooy dër bi waaye léegi nag lamb ji dafa doy waar léegi Pikine la ak Géejawaay. ak Géejawaay li ko waral moom mooy. Balla Gaye dafa dugg Pikine non Fass classico la de du dër bi de. non mais dër bi la mais léegi dër bi dafa tuxu diggante Pikine ak Géejawaay Mamadou Mbaye li ko waral mooy Balla Gaye gis nga ko léegi dafa dugg Pikine mhm. am nu mu fa def. waaw dugg Pikine daan fa Mike Tyson. Mhm. Baboy xaritam tey. Mhm. xam nga daan fa ki nga xamante ni moom. daan fa ay ndaanaan daan fa ay ndaanaan daan fa ndaanaan yu bari Tyson Junior. booy ñaa ñëw dugg géejewaay. waaw def fa ni mu def. daan daan fa les deux saa kajoor mhm. gis nga ko léegi léegi. Pape Sène bokkul géejewaay mbis Akon. moo tax léegi. moo tax combat bi doonul combat boo xamante ni combat booy ñaa la ak ki nga xamante ni moom mooy Balla Gaye mais combat Pikine la ak géejewaay. booy ñaa pression boobu noonu. est-ce que antan nga ko Pikine gépp nga ne tey da nga Balla Gaye dafa am ñaari defet yow nga dugg géejawaay am fa benn defet mm-hmm. est-ce que tey jii kii dafa ñëw pour jëlal géejawaay revanche yow nga ñëw jëlal pikin revanche est-ce pression boobu boo ko bëlee waaree dina la arrangé Balla Gaye numéro 2 est-ce que pression boobu noonu revanche su géejawaay nga bëgg ko jël ñëw bëri ko ak ki nga xamante ni moom mooy booy ñaa est-ce que pression boobu antan nga loolu fadamtu maa ngi jégalu bu baax fadamtu fadamtu micro bi Boy Niang ñëwal waaw Baba la maa lay nuyu bu baax. gars yi yéen kii posé wu leen question nag. Baba la maa lay nuyu bu baax di wax ni amul pression. Modou. waaw waaw di wax ni amul pression. parce que lamb tamit ay xale lañu waaye ñu ci bëgg a yàgg quoi. Mm-hmm. te xam nga mise nañ làmb quoi. te amul pression te Pikine amul combat moo jug rek te gungewuñ ma. Mm-hmm. donc yàgg nañ ma gunge ci bis su mag quoi. Balla Gaye numéro 2 amul benn pression incha allah. loo wax li moom rek ci fulaak fayda ñaan yàlla defal ñu ndam. incha allah macha allah Balla loo wax si ba Baye bala wax. waaw Baye Balla moom li mu wax kay leer na nañ lamb la boo xamante ne amateur yi ñoo ko soxla c'est-à-dire que nekkatul sax ay Pikine Guédiawaye. Mm-hmm. lamb Sénégal la. lamb Sénégal la nag kon lamb ko Sénégal bu ko soxla mais kenn ko nekk am na lu yàlla dogal. Mm-hmm. kii dëkk Pikine kii dëkk Guédiawaye. waaw. loolu rek mooy différence mais Sénégal la soxla làmb ji moo tax làmb ji nag vraiment nañ ci yàlla ñu la yàlla may ñu ci ndam. Fadam Tou loo wax. réew mi ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm bu baax di leen ñaanal sutura di ko ñaanal képp ku nekk fii rek ñu ngi lay ñaanal nga am jàmm ñu ngi nuyu suñu papa Gaston Mbengue bu baax di ko ñaanal yàlla na dund téeméeri at ak juróom fukk. yaakaar naa ne nit bu téyee micro fii di wax ci làmb rek yàlla ak suñu papa alaaji Bekkaay Mbay la ma faali ngu mën a am tax bi koy nuyu bu baax di ko ñaanal làmb dafa lëndëm te combat yi bari na la ci ñaari mbëri yu bari di la wan ak li nekk ci làmb ji ça fait deux Modou Mbaye ñu ngi jëm ci bés boo xam ne le premier janvier nekk na bés boo xam ne nii bés bu jàllee pour ñu waxtaanee ci làmb dina jafe lool ndax la ca nekk moo bari lool Modou mbay Boy Niang am na lu ko wuy si ci làmb loo xam ne nii bis bu sàgganee ba loolu rëcc ko dootu ko amati bay laa yombi déen mooy làmb ndax mbër dina toll ci guddi yoo xam ne nii bari na lay ut si doole ci ñaan ci mën a bëre ci nekk ci sa bës waaye ci sa bës boobu noonu da ngay nekk ci làmb pour nga xam bës bi fan nga jëm ak moom ndax day bëri mbër moo xam ne nii kenn mënta natt Balla Gaye numéro 2 ba dab ko mënoo xam ne lii la mën a ci làmb kon mbër moom booy bëreek moom lépp loo am tam nekk arme ci yow da koy jël nga favoriser ko def ko loo xam ne nii doo ko sàgganee man nag ci làmb rek laay wax ndax bés bi dafa toll foo xam ne nii. fii dañoo basket. waaye waaye ci euh, euh, nangul naa la xam nga làmb ji dafa toll foo xam ne nii li ma ciy wax waa axlu làmb rek dañ gën a bàyyi xel lenn day bés boo xam ne nii bés bu war a defar làmb la. day am combat yoo xam ne nii ne ko làmb bàyyi xel combat yooyu day juddalaat làmb combat bi dafa dundalaat làmb fépp fu làmb doon nelaw te ji làmb yeewaat na fa. waaye Balla Gaye numéro 2 na message bu koy lancé am na message bu may lancé Boy li may wax Boy Balla Gaye numéro benn baat rek laa koy wax Modou Mbaye mooy bëri na bés bu nekk waaye bës bi ak bés yi mu doon bëre uti na. ndax mu ngi doog resevoir ki nga xam ne nii tey jii mën na ñox nañ la tofoom la ci làmb muy xale boo xam ne nii tey jii mën naa séntu qualité yëpp ci moom di Balla Gaye de ñu ngi koy xaar ca bëre ba ñu ngi koy xaar ca xeex ba ñu ngi koy xaar ca sañ-sañu biir géew ba ndax làmb ji Modou Mbaye bari nii la ci am ci digg géew ba lay amee. say deux minutes waaye kii di kii di kii di kii di Boy Niang li ma koy wax rek mooy pikin dañ ko yónni yàkkamti ko. te askanu lamb yëpp ñu ngi topp ci seen ginnaaw Modou Mbaye loolu laa amoon li ma jox ndax lamb ji toll doll des deux mois décortiquer ko ko teel na loolu laa amoon li may wax rek maa ngi nuyu réew mépp di ñaanal jàmm di nuyu jéy seen di nga xam ne Kajoor production nga xam ne ni futur maire Kër Massar ndax doomu Kër Massar la comme la ñaanal jàmm di la wax yàlla na yàlla defal jàmm ci barke Seydina Muhammad waaw nag maa ngi nuyu sama téer bi nga xam ne nii mooy Modou Mbaye mi jàmm Modou Fatma Lo xale bi nga xam ne ni mu ngi ca jëppal un nekk xale bu mën a ñëw yàlla na ko yàlla defal jàmm ci barke yent bi indil xam nga ni su ma demee ba laaj la ku la ñëwal c'est parce que xaw naa laa rey doyen maa ngi jégalu ci yow laa waroon njëkkee Iba bakkan mooy suñu doyen en deux minutes rek Balla Gaye Boy Niang wala da ngay poser question waaw dinaa poser question quand même parce que xam naa ne gars yi moom la ñuy xaar mais avant tout damay damay jaale euh, Salif Diallo suñu confrère bi nga xam ne moo génn démb àdduna te mu yàgg liggéey ak. voilà c'est vrai mu nekkoon ak ñun mu nekkoon koo xam ne bu bindee rek ñëpp kontaan. Vélingara bu mu tëdd tey ñu ngi koy ñaan yàlla na ko fa yàlla xare àjjana. amiin ah di nuyu Balla Gaye ak booy Niang 2 di am question boo xam ne ñaari question yoo xam ne ñoom ñoo ko bokk ñaari question yu may posé yëpp ñoom ñoo ko bokk. question commune la. waaw question commune la ñëwal. Balla Gaye 2. waaw Boy Niang. waaw nu mu la ñemee nii ñeme bu mu la ñemee. lan la lan la lu tax moom mu ñeme la beneen bi mooy. xaaral tontu leen. boo ñaa loolu la Balla kii lu la ñemee. non ñeme ma dafa ma fan. booy ñaa tontul. soit <laughs> moom bëgg na fans bu tur booy ñaa trop doo ko am moom <laughs> faaw ma la de waru la de mais xam nga làmb na rek. Mhm. dañu war a bëree te maa moom amul ragalante. Mhm. am lu ñu war a ragalante. ay làmb lañu ñoo ko sekk géew bi maa moom ñoo ci nekk kenn raxuñu loolu war a bëri xeex. honoré suñu contrat bi ñu signé ak suñu papa Gasson. Mhm. bëggal Sénégal bëggal amateurs yi loolu rek moo ci nekk. Ibakan deuxième question waaw deuxième question bi ñoom ñaar ñoo ko bokk ba léegi. Euh, nan nga gisee forme Boy Niang 2 Boy nan nga gisee forme Balla Gaye 2 bii toog sa kanam. acca répondez. merci Balla Gaye noo gisee booy ñaa forme ab Abdou Ndour am. mais mais Modou Mbaye kan mooy lekk amal di tëdd nelaw. moo ma jaaxal. kenn sañu ko. Uh-huh. man sañu ma ko moom Boy Niang sañu ko. macha allah mu ngi liggéey boo gis xam ne mu ngi liggéey mu ngi ci forme. Mm-hmm. bu baax a baax macha allah. boo ñam état de baax la noo ko gisee. waaw ça va mi ngi ci de. waaw mu ngi ci de amul benn problème incha allah mi ngi liggéey xam nga te làmb ji tamit maa ngi ma même dañoo war a jóg. waaw mooy lool pour ñu bëggal amateur yi daal parce que loolu da ci am solo bu baax a baax. Abou Ndour Modou. waaw Modou. sama papa Mbaye Gueye Faye. waaw. maa ngi koy nuyu ak Mbaye Kallou. Birane Ndour koy nuyu bu baax incha allah. ñëwal Abou Ndour. doyen asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp. fi may njëkkee mooy euh, soit su naka. Euh, su xam ne moom mooy Gaston Mbengue. waaw maa ngi koy souhaité anniversaire bu neex. bon anniversaire. donc di wax ne dafa am jikko boo xam ne dafa lë lëmbee làmb. te rafle ci ci moom Gaston moom mooy na na naafeq waaw naa fekk dafa lëmbee. lamb lamb ji tey raf la ci Gaston. donc maa koy nuyu. li may wax ñoom ñaar mooy Boy Niang 2 ak ak ak Balla Gaye seen seen ruq bañ a def face à bu keroogee lamb ji day fees del nit ñi dañ ko li may li ma leen di laaj ñoom ñaar mooy seen seen ñoom ñaar il est vrai yow da nga da juum un peu seen palmarès bu Balla Gaye. comment c'est c'est 22 victoires et et 5 défaites. waaw ça ça fait ba ba Boy Niang 2 13 22 victoires ak ak 5 défaites. ça fait mu 27 combats. 27 mu nekk 27 combats. waaw kële nekk am Boy Niang 2 am 13 victoires ak 4 défaites. mu nekk 17. 17 combats soo boolee ñoom ñaar mu nekk 44 combats. 44 combats 44 combats yi ñaari combats nga si génne mooy benn adversaire commun la ñoom. mooy Tapha Tine. waaw mu des 42. waaw li ci des yëpp bokkuñu adversaire. déedéet woon ne ñoom bokkuñu yoon. déedéet nii lañ def. bo bokkuñu yoon. waaw Balla Gaye 2. dama koy posé benn cest à boo boo doon xool tey làmb làmb leen boo la ñu wax. la mais boo doon xool seen kii te apparemment rek Balla Gaye 2 ak Boy Niang duñ bëre. Hmm. waaye nag làmb toll foo xam ne grand corps petit. Hmm. loolu loolooy li am. donte Boy Niang 2. Euh, euh, il a fait Boy Niang 2 li ko fi indi mooy. Euh, Garga Mbossé. guy gi ak Sa loolu moo koy indi fii. Mm. mais Boy Niang est-ce que li nga li nga échoué si Lac 2 ak Tapha Tine est-ce que jàpp nga ne war nga koo mën a réussir devant Balla Gaye 2. ci Balla Balla Gaye 2 da nga bëri ak ak Modou Lo le le 21 mars 2010. 10 waaw en 30 secondes. nga boole ak nga bëri ak ak Tyson le 31 juillet 2011 20 20 secondes. nga bo nga nga nga nga bëri ak Yékini le 22 avril 2012 euh, une minute 22 boo ko boolee moins de 10 minutes la la doon bëri. Ah. mais combat mi mujj contre Modou Lo ak Gris Bordeaux ak ak kii 13 minutes 18 euh, minutes lan moo waral ko combat Balla Gaye léegi di di yéex. Balla Gaye 2 ak ak Boy Niang ñoo ngi bëri combat fi ñu toog parce que Balla Gaye 2 nee na ko une minute bi nga wax na nga ko dëggal loolooy avantage bu Balla Gaye 2 Boy Niang 2 ne ko il passe de une minute à 20 minutes lan moo waral Boy Niang 2 jógee une minute day dem benn minute. kii. tàccu leen ko waaye waaye kooku suñ doyen la Abu Ndour Abu waaye Abu Ndour waaye Modou bëgg naa lii ñëwal Boy Niang Modou waaw foofu li ma wax Abu rek moo Abu waaw ñëwal mi foofu lu ma lay leeral rek mooy nekku na dama jóge une minute dem vingt minutes ci waxtaan la rek waaw dafa ne moom mii ci forme mii ci état xam nga mi physique bi baax na. ok ma kon bu ñu bëree 20 minutes yu saf saap nañ xam kat mooy bàyyi comprendre nga. waaw noonu la mais ñu fi ñu tegoon diggante bi moom fàtt xaju fi changé mënu fee xaj diggante bi matul sax 20 jours dañuy waxoon lañ la wax incha allah waaw li des nag mooy suñu borom la ñuy ñaan mu may ñu dam incha allah amul benn problème. ki répondre na sa question. ci Tapha Tine ak la de Guiers. waaw loolu xam nga làmb bokkul. làmb moom adversaire yi ñoo bokkul. Hmm. waaw adversaire bu ne ak nooy bëree moom. ak adversaire bu ne ak ni nga ko jàngee ak ni nga ko xamee ak ni nga ko toppee yàggee topp di ko xool adversaire yi bokkul moom nag xam naa ko bu baax sama waa ji xam nga. Mm. amul benn problème incha allah. Mm. waaw moom moom pare nañ bu baax a baax incha allah. <laughs> Balla la wax ci Abou Ndour li mu wax. waaw Abou Ndour waaw wax na làmb nag loo xam vraiment wax na làmb na ñaari palmarès yëpp. Mm. te làmb moo demee noonu léegi làmb nekkatul ay palmarès wala nangam. parce que gis ñoo xamante da ngay def sa carrière bu long mais li gën a am importance nag boobu ñu def. dañ koy sàmm nag bu baax a baax a baax a baax c'est très important. Mm-hmm. parce que carré boobu ñu def ba ñi nga xam ne ñu ngi ñëw ci làmb defaguñ loolu ñuy bëri ak ñoom ah leen seen sens aussi tamit dañuy respecter toujours suñu carrière respecter suñu champion respecter suñu lépp ne di bëggal suñu supporter mais nag euh, maa ngi bëggee sama mbokk chinois yi nekk euh, Italie ak France di leen bëggee ñoom ñëpp. mu ne mu ne mu ne da nga bëreeg Modou Lo 30 secondes. bëreeg Tyson 20 secondes bëreeg Yékini une minute. 22 secondes sa dernier combat contre Modou Lo ça a un peu duré sa combat contre Gris Bordeaux ça a dure loolu nga laajte ah mu ne lan moo waral sa combat yu mujj gën a yéex kayu njëkk yi. waaw xam nga am na ñoo xam ne bëri ñaar a koy def. Hmm. bu fekkee ne arbitre dafa sifflé nga taxaw ñu war a bëri bëre ñu war a xeex xeex. waaw làmb ji nit dañ fiy jóge. ndeysaan déggal loolu waaw c'est la dégestive yi garaaw. Babacar. yaa doon kaas naan ma la presse ñu ngi fi am. mais wutal leen ko léegi boole naa ko fëgg ak waa class. ah. waaw ngi nuyu mbokk yëpp Modou. Pape loo wax foofu waa waaw di souhaiter père rek joyeux anniversaire comme moom suñu per la mais suñu kal la parce que daf ñoo def ay doomam kon du ñu mën a def lu dul ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér di nuyu Baye Laat Laat Ndiaye parce que dafa am loo xam ne dafay baax di wax quoi di wax mention di ko wax mention spéciale par rapport ak ni muy taxawoo làmb sax laay waxuma sax ay promoteur mais làmb ci boppam kon Laat taxawaay bi am na solo magan tamit yàlla na yoon wi gën a gudd gën a baax gën a réussir waa question bi lenn la muy maanaam suma question mooy si booy Niang lay njëkkee. mooy loo koy par rapport ak ni ma ko gisee mu affronté Balla kera ci signature bi amul Sorano. Ah. dafa am ñu bëri ñu ne booy Niang dafa gën a dugal Balla ci combat bi maanaam da ko mel ni lu ko alimenté ci wàllum. combat bi. Ah. parce que des fois nga dégg ay nit di wax loolu mbër day. des fois da nga ko war a yoot ba jaar ko fii daan ko mais Boy Niang dafa ñëw wan Balla ne ko maay xale maay ñëw sa kaw est-ce que Boy Niang mu def ndax. mooy combat bi wala kombaa bi du loolu. Boy Niang. waaw mais man moom bu ma jëlee combat bi rek ci laa ci nekk quoi. Hmm. donc xam nga mbër boo xamante ne da nga motivé wu xam nga. xam nga bis bi xam nga bis bi fu mu jógee ak fu mu jëm. Hmm. donc nekkul dañuy xaar ba ñëw signature ñu wax pour nga dugg ci combat bi xam nga. Hmm. man moom ba ma jëlee combat bi dama dugg ci combat bi. nekk préparation ànd ak sumay mbokk. Mhm. waaw moom nag mun na am xam naa day xaar pour wax man xaaruma pour wax pour dugal ma ci combat. Mhm. combat boo ko jëlee ak combat fu mu toll ak maa moom fu donc waru xaar ma wax pour mu dugg ci combat bi. Mhm. man tamit mu dugg ci combat ak mu ñàkk dugg ci combat bi loolu amul benn problème. ba li am solo rek mooy li may liggéey ak ñi ma ci àndal incha allah rabi. macha allah ayca. Balla li ma la toppee ba tey du ma ci jóg. muy ba tey ci laa lay toppee rek. mooy lan jaral na ma ma ñëw ba géej way mooy noppi gi nga noppi. depuis booba ba tey. da ngaa mel ni rek ku noppi. ko da ngaa noppi sax tey sax moom wax nga essence ngeen mu mel ni yow itam dafa am ci li ma xalaat man wala question ma lay posé da ngay piéger Boy pour teel koo jàpp ngeen teel a bëre combat bi jeex moo waral noppi gi mu bëgg mu di la sëkkatal wala lan moo xew. merci. Balla maa ngi nuyu nga baal ma balaa ma wax ci question maa ngi nuyu waa Gétt Ardo bu baax sama mbokku pël yi bu baax ak sama mbokk waalo waalo yi gis naa taxawaay bi. maa ngi leen di bu baax a baax waaw euh, jour boobu signature la rek xam nga signature bi dafa dafa tegu ci yoon bee tegu ci yoon mais parole yi tamit ak wax ji ak tàngaay bi ak mbëri fa dajaloon kenn ku nekk wane sa bopp loolu kese mais man ñëpp xam nañ ne sama signature day neex ni ko bëggee noonu laa ci ànd ak moom dafee ko noonu mhm. mais jàpp nañ ne daal làmb la boo xamante ne lu ma respecté la nag parce que kii ndaanaan la. Mhm. ku xool Père Mansour Diop Père Bourkhane. ah ak Père De ak Abdou Baax ok Abdou Baax ab nu mu tudd. Père Xës Père waaw Père Xës xam nga ñooñu ay ndaanaan lañu. te man dama leen di déglu maanaam dañ may yóbbu ci ay dimension yu am solo. Mhm. léeg-léeg dama leen di seetaan ah, sama xol day sedd benn jour dama mës a xam nga ñàkk ki ñaan dafa am solo. Mhm. dama sa toog benn mbër bu mag ku ci mel ne ma seen waxuma pour jaxase ah. Mhm. mu leer mu ne Balla xam nga ne champion nga delluwaatal nga liggéey xam fa nga nekkoon nga delluwaat fa. Mhm. wax yooyu daf may motiver. Mhm. ma dégloo Père Mansour Diop muy def ci live yi dafa may neex parce que man bañkat laa de. Modou Mbaye. <laughs> samay supporter xam nañ loolu sax bañkat dëgg mooy man. foo may séntu doo fa gis. loolu yàlla dimbal na aussi mais ñu ngi ñaan yàlla yàlla yóbbuñ ci jàmm ak jàmm ak salaam. ñoo gën a dugal baykat Fatma kooku kii kii ni wax nag moom sama élément la Adja Fatma. ñoo gën kooku sama rakk la. waaw salaamaaleykum. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp. di leen ah. ziar. di baalu ñëpp ak di baalu ñëpp ak. di souhaiter suñu papa Gaston kon ni ko gars yi waxee rek joyeux anniversaire. di ko ñaanal yàlla rek yàlla aar ko yàlla sàmm ko ci barke yonent bi. di nuyu ñaari champion yi di nuyu ñëpp euh, man sa première question ci Boy Niang euh, ci Balla Gaye la nekk la jëm euh, ndax dañoo gis ni à chaque fois fan yi affaire médicale dafa dafa xaw a kii si ñaari combat yi ndax dañuy dégg waa Pikine à chaque fois ñu naan médical Balla Gaye day déposé médical day déposé médical. day déposé waaw est-ce que médical boobu noonu. lan la Balla dafa di ko nëbb. wala tam parce que gis wax jooju noonu à chaque fois ñun dañuy kii dañ koy dégg médical bi médical bi médical boobu noonu nan la demee. mu médical bi ñuy wax ni waa Pikine à chaque fois dañuy wax ni yow da ngay déposé médical à chaque fois doo bëri quoi. kopp ñun ñooy nekk sur le terrain affaire boobu nag. Euh, maanaam coow Balla Gaye di déposé médical dafa bari. yow loo si wax. auzu billaahi mina seytaani auzu billaahi mina seytaani rajiim. yàlla na yàlla mos ci loolu. amiin ñi ko doon wax tamit loolu xëy na seen xel moo toll foofu rek nga làmb dafa am dimension boobu bu fa toll. kenn ku nekk day génn di wax te loolu jaru ko ñaari mbëri nañ leen ñaanal jàmm ak salaam. loolu moom importance. Mm-hmm. waaye topp doomu jàmbur naa ko nangam ak nangam. même bu yéen a dee wala yéen a ko torof torof nañ génn ci yooyu. eh waxu caaxaan la rek. Fatma beneen bi mooy pour Boy Niang Boy Niang sànq wax na ko gis nañ ni euh, ñaari poids lourds yëpp réussir ci muy Lac de Guiers 2 ak Tapha Tine euh, Balla Gaye numéro ak adversaire yooyu nga doon bëreel est que am na différence ndax dañuy dégg à chaque fois ñu naan poids lourds yi bi mooy sa dernière chance du man quoi gars yi ñoom ñoo koy wax maa ngi waaw mais comme li ma la wax rek nee naa adversaire yi amul différence parce que ku ci nekk ak nooy bëreeg moom rek te xam nga poids yi may bëreel tamit ah mun naa ne aw ma ci ñoom victoire waaye ñoom tamit daanu ñu ma de par avertissement lañ may daan ak te combat bi incha allah du bokk combat yooyu combat bi dañ ko jël xam fu ñu jugee ñu war a yóbbu ak combat bi lu mu laaj incha allah rabbi incha allah ko bëlee ci fulaak fayda ak jom incha allah di ñaan suñu borom may ñu ndam incha allah. Adja Modou Mbaye Fall maa ngi nuyu Cheikhou Cheikh na Cheikh Saad bi sama waa kër maam Cheikh Ibrahima Seck Ah. maa ngi nuyu suma waa kër maam Cheikh Rim Duma Seck waa kër Cheikh da Calaw set Gaynde Nguraan maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu waa Lugudu di nuyu bu baax baax macha allah aja moo doon tax ñu gaaw parce que liñ des ci temps waa liñ dese ci temps bareetul di leen jox seen waaye di nuyu sama waa dëkk waa Lambaay Bawol di nuyu njaboot Serigne Aliou Diouf Lambaay gépp di leen ñaanal gudd fan ak wér yaram moo di yaakaar naa ne question bi man nuyoo bi foofu laa ko yemale ñaari question la am benn Balla Gaye benn pour Boy Niang Balla Gaye numéro dama gis ci amateuru làmb yi ñu bëri ne ni muy bëree dafa arrangé booy Niang parce que pied gauche lay jiital Boy Niang pied droit lay jiital te Balla saa bu jëmee ci adversaire garde gi day yaatu du am are te Boy Niang am na euh, am na euh, crochet droit boo xamante bi ni yàgg na cee jeexal làmb mu tontu ma jàll ci Boy Niang Boy Niang ñëwal Balla mooy tontu ma jàll ci loolu daal làmb làmb daal làmb la rek c'est-à-dire que yëpp solo ay dóoral ay yaa ma gën a xam. <laughs> jaajëf Omar sama beneen question mooy euh, Boy Niang numéro 2 yaakaar naa ne ñu bëri. dañ koy euh, dañuy dañu remarqué signature am bi passé ñu ne dafa ñime Balla Gaye trop. ñu ci mm. bëree bëri ne ñime googu mu ko ñime da ko war a appliquer suuru làmb ja sama question bi ma koy laaj mooy que est-ce que du am lu ko bett ci Balla Gaye ci wàllum préparation parce que ñu bëri lii dalal dalal na leen ñu bëri ci combat contre Modou ñu ne parewul parewul parewul ba suuru làmb ja mu summeeku andi beneen état de forme est-ce que ñi ko entouragé gëmloo ko ne ko ñu bëree bëri ne ko Balla jeexal na nekkatu fi yaa ko man day xooxale gaynde gu màgg nappe la des affaire yooyu est du am lu ko bett fête bu Balla Gaye 2 sumee ko le premier sans fait jërëjëf. Modou Anta sama doom nday Modou Anta Modou am lu ñu bett. parce que ñun ñu ngi ci liggéey bi tër ñu di nelaw. moom état de forme bu mu indi rek dafi fekk lu fi gën a woo koŋ. ndax maa la wax loolu incha allah loolu moom bul jaaxle benn yoon. te xam nga bala jeexal na moom loolu yow yaa ko wax parce que dégguñu ñu wax ko. waaw parce mbër mi xam nga dafa def carrière ba yegg fu mu yegg ñu tam ay ñu lay xare teg ko bët pour daan ko. faama faama tegoo bët ak ma faam. waaw ah, déglu rek ma ñëw ak ma faam tegoo ma ñëw déglu ah, ma ñëw ñu waxtaan ngeen déglu yaa ngi dégg ñun xale lañu dugg ci làmb suñu carrière dañu préparé mais ba ñuy dugg dafa am fu ñu teg bët yàlla dogal na dogal na ba yàlla dimbali nañu ñu yegg si boo ñaa ba muy commencé am na ñu loo xam ne yaakaar yu woon ni dinañ yegg si fii man ak sama ay morom ñoo commencé dox man génération ma bokkal bi mu débuté ndool ñoom Sa Thiès la ñoom Ama Baldé la ñoom Pape Mor la ñoom Lac Rose la ñoom keneen ak keneen bu ñu lim fi jógee mais dañu am fula fayda ñafe ba yegsi donc bu dee benn mérite pour cent sax dañ ko nit ñi dañu ko war a jox dañ ko am pour bëri ak kii. macha allah parce que ñafe suñu live zéro ba léegi. donc loolu noonu mënuñu dañ fi ñun. Hmm. donc comme li ngay wax ci face à face amul ñeme amul ragal ak loolu amul suñu diggante làmb la moo ñu boole. ñu war a bëri incha allah ñu ngi ñaan suñu boom defal ñu ndam loolu rek. macha allah loolu loolu am na solo ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax mbokk yi di nuyu suñu frère Cartouche champion depuis Paris ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko bégee di jaajëfal gars yi nga xaman ne ñu seetaan waa Gambie ñu ngi ñuy bàyyi xel di leen remercier bu baax a baax a baax kontaan nañ ci yéen pël bu rafet. asalaamaaleykum pël bu rafet baal ma mbokk yi dafa am benn oto bu nekk ci biti bu matricule bi doon A 112 EM. dafa tere génn ay oto A 112 EM 44 bu noir la dafa teree génn ay oto pël bu rafet ay ca asalaamaaleykum maa ngi ziar ñi nekk ci saal bi yëpp di wax Père Gas happy birthday dundal lu bëree bëri euh, sama première question ci Balla Gaye 2 la Balla Gaye ñu gis combat bi avant muy taxaw coow li dafa bëri. sama papa champion la sama papa champion mais dañoo gis ne depuis combat bi taxawee da indi part ak mu mel ni tekk bi dafa am lu ko waral ñu bëgg a xam tekk bi lan la ci Balla Gaye 2 dafa am li nga ëmb pour won ko Boy Niang le premier janvier incha allah. waaw jërëjëf Paul parce que sama papa champion la loolu moom nekkul lu ñuy werante parce que ku gis nag sa papa wax dëgg yàlla mu def lu rafet def carrière am am nga droit foo toll di ko tagg parce que man sama papa liggéey na ci Sénégal ak Afrique. lu tax ma koy teg loolu rek la parce que dama gëm sama papa bëgg ko ma yàlla yóbbu ko donc maa ngi ñaanal sama papa yàlla ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana ak suma trondo bàyyi balla yàlla xaare ko àjjana ak suma papa mbéygéey tubaabu joor booy bambara ñoom ñëpp suñu borom yërëm leen te xaare leen àjjana donc làmb la rek làmb la boo xamante ne vraiment euh, du dara mbër la bu ñu respecté mbër la bu ñu fonk donc lu ci war rek mooy ñu liggéey ba yàlla suñu borom may ñu ci ndam loolu rek lay ñaan yàlla. deuxième question. Boy Niang 2 euh, euh, combat bi ñëpp nee nañ da nga ñeme Balla Gaye 2. ñu ne Balla Gaye 2 li mu indi contre Gris Bordeaux daanu Boy Niang est-ce que nekkul loolu moo tax nga ñeme ki nga xamante ne mooy Balla Gaye 2 en plus dañoo gis ne euh, masse bi nga indi woon ci diggante Lac de Guiers 2 nekkul sa masse Boy Niang delluwaat na ci masse bi nga xamante ne moom lañ ko xamee woon da nga décider pour bëri ak Balla ndax gars yi nee nañ dangay wax may doo songu lan ngay wax gars yi. waaw mais question boobu question boobu mi ngi ñëw léegi dama ñëw waaye dama war a ragal Balla lu tax ma a ragal Balla dañoo war a bëree amul ay ñebeeg yooyu dañoo war a bëree. champion la xam nga bëri naa ñoo xamante ni bëri ñoo ñoom kon donc amul problème amul ay ñebe ragal làmb moo ñu boole rek ñu war a bëree. macha allah amul benn problème waaw. am na solo mbokk yi ñu jox kàddu gi nag la président des amateurs Gora Ndoye. asos làmb ji amatul jeune amateur. benn association fi am mooy les association des amateurs et c'est la président Lamine nag bu Lutte TV Lamine nag Lamine bu Lutte TV mi ngi jéem a formé benn kuréel bu xeex loolu waaye di nga xam ne fii nga ñu fekk. Eh, eh, ak Gora Ndoye loo wax. waaw asalaamaaleykum Modou maa ngi lay nuyu di la féliciter di la encourager bu baax. di nuyu suñu père Bekay. vraiment di nuyu assistance bi yëpp. avant tout nag di féliciter suñu père Gaston Mbengue vraiment di ko wax ni ko ñu ngi koy souhaiter. happy birthday di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér parce que vraiment moom yàggam fi bu fi yàggee rek làmb jëm kanam ndeysaan ndax gis nañ ni ñun amateurs yi combat yi ñu doon réclamer yëpp vraiment taxawal na ko te ku ne gis na tey jii nii làmb bi muy ñëw fi làmb ju tolloon Abdoulaat mu ngi koy wax léegi vraiment ñu amoon problème mu ténor mu ñëw jël ténor yëpp jox leen avance ñii mu tegale leen ay avance kon tey ñun amateurs yi deseelatuñu dara lu dul bu tëggee ñu déplacé wu ñun ñëpp sañ say ñëw dagg bi toog seetaan di ko ñaanal nag mu am réussite totale di félicité aussi tamit 1xBet bi nga xamante ni mooy sponsor bi jënd làmb ji may ko tey amateurs yi nekk ci kër yi parce que amateurs yi aussi am na ñoo xam ne ay mag lañ mënatuñu déplacer di ñëw ci kër yi mais gis nañ ne jël nañ ko maye ko muy loo xamante ni vraiment exclusivité la ñu koy sant moom wet si 1xBet di ñaanal yeneen sponsors yi aussi ñëw jàpp ci bis bi vraiment di wax ni diggante Balla ak ki nga xamante ni mooy Boy Niang dafa nekk combat boo xamante ni ñaari mbër yi il fallait que ñu bëre parce que lamb ji dafa nekk lamb joo xamante ni ñun amateurs yi dañ ko yàgg réclamer kon tey jii dañuy ñaan le juge rek vraiment ñu ñëw remplir seen contrat di wax tamit ne supporters aussi nañu roy ci ñaari mbër yi parce que ñii ñaar ay exemple lañu kenn mus ki yàq lamb kon tey jii nii yaakaar naa seen bis bi nekk na bis boo xamante ni dañuy ñaan ñu dugg si ci jàmm génn si ci jàmm muy nuyu nekk Sénégal particulièrement ñi nekk xamante ni ñoo nekk ci bi di nuy aussi tamit vraiment Ibrahima Diop Kajoor production di ko félicité ci gerte bi mu def parce que diggante Ama Baldé ak Gris Bordeaux su jëlee drapeau bi jox suñu per Gaston loolu vraiment c'est à remercier muy lu rafet ñu koy ñaanal journée boobu aussi yàlla sami defal ko ci réussite totale moo daal vraiment wax ji pour mu bañ gudd ñu ngi nuyu amateurs yëpp di sant ñëpp di nuy Kandji production di nuy aussi tamit Jamil Samb mon frère bu jui Nouroula di nuyu Go Farfa di sant ñëpp <laughs> jaajëf kontaan nañ ci yow bu baax a baax Badou 100 pour cent Grand Dakar ñu ngi koy nuyu c'est notre frère di ko bëggee per Gaston moo war a tëj kàddu yi nga xamante ne mooy jóge ci tribune bi mais balaa ñuy dem seen affiche ginnaaw ba ñoom ñoo yor bis bi ñoom ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu pay-per-view mon ami mon frère lan nga wax ci bis bi ci wàllu seen affiche ndax Mandiaye war na Mandiaye war na fi ñëw bëggal nu borom tey wax ay ca ñëwal. salaamaaleykum Modou Mbaye ñu ngi leen di nuyu di leen si di dem di am euh, mbégte di liggéeyaat bu baax ak euh, Gaston Production di wax que commencé nañu jaay euh, code yi ak pass yi sur senaffiche.com kon nga xam ne képp koo xam ne bëgg na ko jënd rek war na mën a dem jënd ko Euh, parce que instant bii nii dañoo nekk sur prévente ba nga xam ne instant bii nii euh, pass bi 11 euros 99 lay jar incha allahu rabbi 11 euros 99 lay jar ba le 25 et ensuite si lay yokk prix bi def ko 19 euros 99 kon képp ku bëgg jënd pass bi ñu ngi lay soññu ngir nga dem teel koo jënd parce que tamit c'est pas juste acheter un pass même ñi nga xam ne dañoo nekk Sénégal parce que vu que combat bi maye nañ ko non du tout. en fait c'est tout un continue boo xam ne seen affice dafa am exclusivité wu topp mbër yi di leen mm. topp seen entraînement avec une équipe professionnelle di dem seeni entourage di topp mbëri yi di ànd ak ñoom def ay tournage wala ay contenu yoo xam ne c'est juste et exceptionnellement et aussi exclusivement pour seen affiche kon même ku nekk Sénégal war na mën a peut-être jënd bu fekkee ne bëgg na suivre entraînement yooyu. affaire commencé nañu achat yi par euh, carte bancaire PayPal et tout. Mm. képp tamit koo xam ne da ngay jënd par euh, carte bancaire te doxul war nga mën a euh, kii pour ñu jox jëndal la ko fii nii ici à Dakar avec les moyens de paiement Wave Orange Money et cetera merci. kontaan nañ ci yow bu baax a baax Diaw le nouveau promoteur maa ngi lay nuyu bu baax waaye xam ngeen ni nag mënumaa dem sama mbokk yi duñu wax ci Père Gaston. sii di Dem nag sama xarit bi suñu xarit bi maa ngi koy nuyu. kooku suñu xarit la Sidi Dem di transfert. dégg loolu waaye jamono. ah ku ko fekkee. jërëjëf kooku mooy Assane Seck Modou lan ngay wax ci benn kàddu rek ci. waaw Assane maa ngi lay woo sax pour nga gàttal mais seeram moo tàng <laughs> mais Seck dafa am benn message bu may jàllale bu am importance parce que xaalis bi neex na trop mu dafa am lu ëpp doole muy yëg. Hmm. te sunu papa ji Gaston dafa am taranga yu bari ñu def ci ñun mu nëbbu te nit ñi xamuñu ko teel yoon la ñu leeral ko. ndeysaan ndax makan ma le suma xarit la ñoo nekkandoo Italie dama nekk Italie. sam papa génn àdduna pa Gaston moo fa jëkk ndeysaan indi fa ay teraanga dara jeexu fa te ñun yàgg nañ ci làmb ji maa ngi presque léegi ma am cinquante et bi pa yéeli di jël Bombardier di ko ni sam papa naan ko combat jooni jooni stade Demba Diop ma sukk jël ciol bi jox ko ni ko sampal boobu man làmb yàgg naa ci parce samay rakk di tëgg kon am na lu ma xam ci làmb ji mm-hmm. ñu wane yar wane teggin mm. suñu papa ji nekk ku baax mm-hmm. nekk ku dëgg bërki dem bi Assane bi jabaram gaañoo dafa tase ak moom ci mbedd mi ni ko kat kànjam sa kër di def ay taranga ci ñun mun na bu ak mu feeñ ñuy ñaanal nag promoteur yi fi nekk yëpp yàlla na leen yàlla defal jàmm Modou yoon na fi nga jàpp ko bàyyi ndax da sama rakk sama xarit mm-hmm. man sax temps yi dama arrêté tëgg mi parce que bërki dem moo alaaji dama jóge Màkka <laughs> waaye nag lu waay doon mu baax di suñu rakk di yal na la yàlla defal jàmm jërëjëf may gërëm ñëpp na di gërëm suñu papa Thiam ak ñu ci suñu papa yi fa nekk kontaan nañ ci yow bu baax a baax kaddu yi mbokk yi fii balaa Père Gaston di ko tëj Père Thiam lan ngay wax euh, xale yi ndax xam naa ni sax bis bi yeggaguñ ci waaye lan ngay dolli rek ak lan nga gis ci Balla Gaye booy ñaa ci seen ay kàddu loo ci wax Père Thiam mais ñu ngi nuyu assistance bi di nuyu Gaston bu baax a baax a baax. di wax ci kàddu turu président Bira ak membre bureau CNG yëpp ñu ngi lay wax joyeux anniversaire. ñu ngi lay ndokkeel ci sa bis bi mais di wax rek ne lii.